bismillahi arrahmani arrahim qaala alimaamu tirmidiyu fi chamaili lmuhammadiyati imaam tirmidi rahmatullahi alayhi ci chamailam wax na ne xaddatanaa qutaybatu bnu saidin qutayba doomi said nettali nañu qaala mu ne xaddatana almufadalu bnu fadalata nettali nañu an uqaylin uraahu an zuhri an urwata an aishata yal na yàlla gërëm leen ñoom ñëpp de aishatu qaalat mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ida awaa ila firaashihi kulla laylatin jamaca kaffayhi ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam saa yu tappuhaan ci lalam guddi gune bala nelaw fadaa dajale ñaari ténxam mel ni kuy ñaan fa nafasa fiihima mu wal ca ñoom ñaar maanaam waluk tufli tufli kuy ñaan noonule wa qara'a fiihima mu jàng ca biir ñaari tenq ya qul huwa allahu ahad saaru lixlaas wa qul audu bi rabbil falaq saaru falaq wa qul audu bi rabbi nnaas saaru nnaas thumma masaxa bihima mastataaca min jasadihi mu daal di raay ñaari loxo yi fu lum mën ci yaramam maanaam fu loxoom mën a àgg ci yaramam rek mu raay ko ak la ca loxo ya fu muy tàmbalee mu ne yabda'u bihima ra'sahu bopp ba lay tàmbalee wa wajhahu dek ca kanam ga wa ma aqbala min jasadihi ak kanamu yaramam yasna'u dhalika thalatha marratin guddi gu ne bu ci lalam dana def lii ñetti yoon saa yu daa ci lalam daal dana def li ñetti yoon am na yeneen ñaan nag daañ ca dikk hadis ji mi ngi ci chamail achamail al muhammadiya bu al imaamu tirmidi hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa wa sahbihi wa sallama